lii nag bokk ci suñu liggéey depuis ñu gis ko il y dix jours mi ngi ci dëkk bi ñu alerte mbuur la amee woon ñu dem fa ñu xool après ñu alerte mais réaction amul xam nga nag Sénégal man ni ma jàppe bala ñuy réactionner dara rek foog mu ëppi loxo bon parce que mbir mi ci quarante presque quarante trois ci géej fa la benn genre ndox nekk ndox mi njànd lañ ko tudde mais dafa mel ni produit bu ñu fa sotti la produit boobu nag la ñu jàpp ni à l'heure actuelle ci li ñu jàppagul moom moo war a indi effet bi mu am parce que caa démb gaal yi nga xam ne dañu jóge fii dem nappi zone boobu diggante booru mbuur ci Cap ci Kell la daal tollook mbuur dafa nekk diggante mbuur ak Tëngéej xale yi fa nappi woon yëpp bi ñu ñëwee démb ak bër bërki démb ak bërkaati démb caaroy la manifeste normal démb mais tey bi gaal yi demaatee géej bii ci guddi la manifeste normalement Tëngéej waaw ni muy manifester daal ay picc lay def sa yaram ba pare sa tuñ dafay xonqal sa tuñ mu mel ni lu am ay dëtt ba pare day jàpp ba jàpp ci sa sàkkar day jàpp ba jàpp ci sa suuf xonqal ko cur def ko ay picc genre waga lay doon li ñu njort daal soit produit la soit dëkk bi tamit bon ci xalaat rek la ñuy joxe mën na tamit parce que euh, géej gi dafa bari ay koor ay nit ñu ci dee bari na ci trop ren vraiment bari na ci xamuñu nag loolu la am du loolu mais comme démb ministre de la santé bi mu ñëwee fële ut nañ ndox mi même ñun ut ñu dañuy uti ndox mi suba bu buñ ko utee ñu yóbbu ko lii Pasteur jox ko docteur Fall pour mu defal ñu ci ay analyse ñu xool ko parce que du ñu bàyyi rek gars yi dem ñëw ni ñu lii la wala lii parce que tamit lii buñ continuer mën na indi jafe-jafe yu metti ci géej gi non seulement ci jën wi non seulement tamit ci doomu aadama yi dugg ci géej gi loolu moo tax nag ñu ngi alerter àdduna bi yëpp vraiment pour ñu gën a taxaw nappkat yi parce que ci atum ren ji ñu ngi wax licence de ñu ngi wax accord de pêche ñu ngi wax waga bu dugg géej gi bon bu yàggee ñu nappkat yi fan lañu jëm dañu ragal ni mën na wàllaate moo tax ñu jël matukaay yi ñu jël parce que ñi nga xam ne daal da leen dal boo solee ay bot wala nga sol siré dalu la ñi mu dal ci kanam la leen dal ak ci loxo ak ñi solul ay bot ci seen tànk constat boobu def nañ ko ci mais jàpp nañ ni tamit mën na indi wàllaate parce que boo xoolee ni muy évoluer mën na indi wàllaate loolu moo tax ñu jël matukaay yi pour indi leen fii très rapidement pour xool ndax mënul wàllaate am déet parce que tamit bu ñu jëf fagarul parce que ñu ngi woon sànq ci ay 73 mais da ngay jekki-jekki ñu waxaat la feneen waxaat la feneen au fi mu ne ñu ngi bëgg dem ci 100 personnes